fidèles internautes bonjour bienvenue dans Makane sur Sénégal 7 amati naa nag honneur a grand plaisir comme d'habitude ah di jàkkaarloo waat ak yéen waaye tey nag damay seet si koo xamante ni macha allah fa tubaar fa kàlla dañ naan wax dëgg yàlla euh, sa papa bu nekkee ci mbir rek par la force bu dee da nga demeewoo demi mesure rek ci kattanu yàlla da nga koy doon mu nekk nag une fille talentueuse mais jamono ji nag du ma ne ko fii ndax c'est une très belle dame et macha allah elle euh, elle vient de sortir benn single boo ci réseaux sociaux yi ak ci média yëpp sax laay wax euh, dañuy def rek li nga xamante ni mooy dugg ànd kook Babacar mi nga xamante ni tey damaa wér ci naaj bi moo paam <laughs> ñu ñu xool ci kàttanu yàlla ah surprise lay doon bu leen ko bu leen ko wute rebonjour chers amis euh, internautes nuyuwaat nañ leen comme euh, niñ leen ko defee woon sànq Euh, fi ngeen ma gis nag dalal nañ ma maa ngi ci sama kër invité bi nga xamante ni ci kàttanu yàlla Nestor dinaa leen ko wan mais ma wax leen rek euh, ñaar ba ñett ci moom wax dëgg yàlla ndax jamono ji nee nañ mooy la parisienne de la musique sénégalaise macha allah xale bu nangoo jàng xale boo xamante ni aussi bi euh, gëstu waree ci li nga xamante ni mooy musique bi muy def daf ko dem jàngi dooree mi fa solaas yi moom tey ci kàttanu yàlla dinañ ci xam lu bari damay def rek lu dul wax Babacar mi wan ñu ko aji nuyu nañ la maa ngi lay fay bu baax Thiat. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. te <laughs> yóbbu yóbbu nga ma gis delloo nga ma fële euh, Paris. <laughs> ah bon delloo naa la Paris yu dem nañ Paris tey dama simple la nii rek de gis nga couleur yi nu ñu bëree. mbaa xam nga ni boo defatee bu bu xëm mu dinañ la mere dinañ def muy simple. <laughs> bleu noir rouge te couleur yi bëri nañ trop. nii la il faut oser. waaw mais. ay artistes lañu. waaw donc il faut oser. Mm-hmm. comme ni ñu ko waxee donc di nuyu rek. Mm-hmm. seen internautes yi. internautes Sénégal 7. Mm-hmm. di la nuyu aussi. di rafetlu trop invitation bi. di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan. di nuyu fans yi fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna bi. ndeysaan Adja comme ni ngeen ko gisee toujours nag dafay souriante moo tax ma bëggoon ndax man damaa bëggee ree moo tax di toog ak kuy kuy ree damay neex. waaw jeex na médicament bu garaaw la. hôpital sax amu ko. Adja ba tey ñu continuer comme ni ñu leen ko waxee woon rek euh, makkaan nag dara lu dul émission boo xamante ni ni ma koy waxee mettrul kenn à l'écart foo mënti nekk koo mënti doon na la sénégalais yi soxla ak internet yi rek dañ lay ñëw jël si euh, tey nag mooy sama invité Adiouza mais nag dañuy ñëw tuuti rek ci ci namoon gi ñu la namoon ak ah <laughs> vrai que sax du ñàkk wax nga ba bëgg dee mais waxati waxatuñu rek ci ci ci yan ak yan nga nekk. waaw dëgg la c'est que journaliste yi nag ñoom defe naa ñoom a gën a sax. waaw public noo namoon nañ la ndax na la fan nga nekkoon. Uh-huh. gëj nañ laa déggee yoon. mais euh, comme ni ma koy faral di waxee tamit d'habitude les mêmes réponses mm-hmm. Euh, dama nekkoon na ci ay euh, dama lëlu woon <laughs> pause obliger laa nekkoon. moo tax année bi yëpp euh, ngeen gëj ma dégg kenn dégg gisuma fenn aussi dama doon làqatu bu baax. Mhm. parce que dama ñaawoon. Mhm. <laughs> moo tax ma doon làqatu bu baax donc ngeen gëj ma. déggoo ma da ngaa rafetoon. <laughs> moom la yooyu lool. donc fan si gëj ma dégg tamit. Uh-huh. parce que dama doon làqatu di làqatu mais maa ngi doon continuer. répétition yi euh, répétition mm-hmm. studio yi mm-hmm. tournage de clip yi. comme mm-hmm. Adiouza ñu xam dafa bëgg liggéey. donc j'ai pas arrêté de travailler même en étant un peu kii. Euh, am obstacle. ci sama liggéey. dama doon continuer quand même di liggéey. donc pour rek préparer fans yi bëggal fans yi. fans yi bañ a gën a toog lu yàgg aussi. bañ ma dégg. looloo waraloon même en étant enceinte ma doon continuer. Mm-hmm. di liggéey di dem studio. pour bëggal fan si en fin d'année. Mm-hmm. atia comme li ma wax rek muy dame de fer boo xamante ni euh, bi mu ko nekkee sax ndeysaan en état terewul mi ngi doon continuer euh, rien que ñun mu jox ñu li nga xam ne moom lañ soxla te di ko tàmm di gis ci moom euh, ana bébé mu ngi ci jàmm. mu ngi ci <laughs> <laughs> ñu gën a dem rek ci li nga xamante ni moom mu ñu gën a indi mooy baat ak tontu mm-hmm. ñenn ñi jàpp nañu Adiouza tey yàlla dafa def mu bokk ci jeunes yi nga xamante te ni euh, jeunes musiciens yi euh, seen yi nga xamante ni euh, ñu ngi Sénégal mais dañoo am constance yàlla def na même bu ñu demee sax bu ñu ñëwaatee dañuy gën a mën a marquer seen empreinte lan mooy secret constance boobu. secret constance boobu est-ce que duma ko duma ko <laughs> jagleel sénégalais yi quand même parce que Adiouza day absenté wu lu yàgg des fois mm-hmm. ba ñenn ñi ne waaye kooku fu mu nekkati fu mu mm-hmm. réerati mm-hmm. mais su ma ñëwaatee rek les sénégalais dañ may accueillir bu baax su ma defee benn musique les sénégalais dañ koy accueillir saa yu ma ñëwaatee daal dinañ ma jox sama place donc duma def lu dul remercier surtout les fan ñi ma jege rëkk ñi ma sës rëkk ñi nga xam ne ñoom ñooy fësal sama liggéey di remercier aussi les médias mhm. yi nga xam ne tam dañ ciy jàpp dañuy fësal bu baax sama sama liggéey mhm. di remercier képp ku jàpp ci liggéey bi rek mhm. parce que tamit yombul léeg-léeg nga am sa idole nga toog lu yàgg doo ko dégg <laughs> yombul yombul di tout pour les fan comprendre naa leen donc bu ñu toogee dégguñu Adiouza fu ne lañ may bind fu ne lañ may woo Adiouza ci loo nee <laughs> foo nekk dañ la namm foog nga génne foog nga tàngalan ah. foog nga tàngal parce que la nature a peur du vide <laughs> ma leen tey leen rek tey leen mhm. donc du yàgg maa ngi ñëw donc mhm. boo gisee may jël temps en général mhm. muy am intervalle yu rëy entre samay single mhm. entre mes mes albums mhm. c'est juste par souci de bien fair les choses tout à fait travail mhm. dama perfectionniste de trop euh, rus naa tey wala jomal naa sama bopp génnee musique boo xam ne bu ko nit ñi déggee dañ naan ah Beyond de kii liggéey daanu la <laughs> waaw bii moom liggéeyu ko boo ko boo ko déggee à chaque fois damay def tout rek ba ku ku dégg li may def rek xam ne ne au moins jóob naa ci mhm. rey naa ci sama bopp jox naa ko àqam mhm. donc man loolu mooy sama défi en quelque sorte mhm. fexe ba sama musique am ouverture ba ku ko dégg rek di nga ko mën a déglu di nga mën a tamit admettre nekk saa waay liggéey liggéey na d'habitude sax ñun loolu nga ñu tàmmal ah, ndax saa boo génnee mu nekk du lourd et machallah day promet euh, machallah comme ni nga ko waxee nag sànq nga bokk tamit ci xale yi jigéen yi nga xamante ni ñoo njëkk a osé di def euh, di woy en même temps di def ay chorégraphe ci ci ci biir euh, am na sama benn xarit boo xamante ni da ko da ko bëgg Massaer la tudd nee bokk na ci jigéen yi nga xam ñëwee Sénégal dañoo dañoo osé mhm. def chorégraphe mais d'habitude ci commencement bi metti woon na de xam naa da nga rek ci commencement bi mënu ma woon fecc au fait mënu fecc donc il a ko que fecckat yi dama daan comme ni nga demee ba aay nii ah. waaw dañ ma jàngal nag. dama jàngalu bëri damay jël ñoom li ñuy jàng benn jour mën naa jël deux semaines. pour jàng fecc yi ngir rek bëgg fecc. bëgg fecc <laughs> te mënu ma <laughs> te nag mënu ma de. mais damay jàng dama perfectionniste. Uh-huh. dama ciy topp dañ may jàngal pendant deux semaines balaa may clip dinaa jàng chorégraphie bi deux semaines. Uh-huh. donc muy loo xam ne nii empreinte la quand bu ma indi ci musique sénégalaise. tout à fait ñu wax ko bañ koo wax aussi ñu fàttaliku bañ koo fàttaliku. Uh-huh. Euh, bi may ñëw ci musique sénégalaise je pense que les chanteuses cela jouait diva. kenn chanteuses yi daan ñoon dugg ci seen i chorégraphie. d'accord fecckat yi daan nañ ko def. tout à fait mu saw daan nañ ko def mhm. naturellement. Mhm. ay fecckat lañu mais mhm. chanteuses yi. daan nañu fecc. mais man bi ma ñëwee. man gis ne loolu y benn complexe ci ñoom. waaw peut-être peut du complexe mais seen style la woon. man bi ma ñëwee pour changer pour nit ñi xàmmee ma ci dara. ma commencé di fecc ak danseuse yi malgré que mënuma woon fecc <laughs> dama doon mais loolu tax mu doon neex nit ñi jaxase yi nga ko doon <laughs> sama marque la quand même <laughs> marque de fabrique la léegi léegi marque de fabrique la su ma gisee chanteuse yëpp di dugg ci chorégraphie dama tant uh-huh. mieux uh-huh. maintenant nag boo gisee seetloo ci clip yi ma mujj def sax uh-huh. dama xamaa commencé di génn ci chorégraphie eh, di dem ci ginnaaw non mariage mariage mënoo woon a dugg ci chorégraphie non boobu bu ma ci duggoon sénégalais yi ne non Adji Sarr daf ñu yàpp nag c'est pas normal kon dañuy kaas. moo <laughs> ma ci jaaxal donc euh, <laughs> voilà. <laughs> allah comme ni nga ko waxee sànq nag euh, nga génne nag temps yi euh, single bu doy waar. Mm-hmm. boo xamante ni nouveau marié yi nouvelle yi ñëpp kontaan nañ ci. Mm-hmm. muy mariage mm-hmm. mais dafa am ay kàddu am solo yoo ci lancé. te mën naa ne sax wàcce nga ko bon moment ndax dañoo nekk ci décembre. mais nga relaté waat ñëwaat ci tuuti rek ci mariage. waaw xam nga mariage rek. ay conseils la. yoo xam ne mhm. dama koy jox euh, les jeunes filles. yi nga xam ne ne dañuy douter pour s'engager. parce que mhm. man yàgg naa quand même ci ci ci. ci dund <laughs> ci dund boobu yoon bi yàgg naa aw ma. aw ma jëkkër aw ma mhm. fitu dugg léegi moo tax bi ma marié ba tey ma xalaat ne war naa mën a conseiller dalal seen xel dalal seen xel jox leen ci ay conseil ne maa ngi wax ci son bi sax lëbël bi dafa kawe woon trop mhm. waa ji ñëw aji ko mhm. boo nekkee ak sa jëkkër di ko suturaal mhm. mu ñël say goro donc ay conseil la en quelque sorte yu may joxe pour dire aux jeune filles sauter le pas dugg leen taaru jigéen sëy la kanam macha allah comme ni nga ko waxee am na solo mais euh, ñeneen ñi jàpp aussi c' était une sorte aussi de répondre aux rumeurs yi nga xamante ni amoon na ci euh, divorce bi jotoon am yaag sa sa sa sa jëkkër mais mariage génn na avant rumeur boobu d' accord mariage génnoon na avant rumeur boobu comme rek ñun ay artistes lañu ñun ñoo décidé. Mhm. Euh, célèbre. nekk au devant de la scène. Mhm. donc ça va avec. avec ay rumeurs ça va avec des critiques aussi. Mhm. man je suis ouverte aux critiques. parce que man maa choisir. dem taxaw wane sama bopp. Mhm. nit ñi euh, war ma juger. tout à fait donc euh, j'accepte tout. Mhm. lépp lu ñu ma bindal j'assume tout. Mhm. j'accepte tout waaw léegi nag man je parle pas trop. ngeen may faral di gis. ci médias yi may wax je parle peu peu sax. peu ba dañ ma koy critiquer léeg-léeg. <laughs> ak genre doo gis fenn non. <laughs> elle est presque inexistante en communication. non non non donc voilà. donc du du samay style taamu ma di wax. di mhm. wax fu nekk ak di dem fu nekk di wax. looloo waral loolu silence bi mais du woon tontu mariage génnoon na. Mhm. avant avant kii bi rumeur bi. d' accord maak alhamdulilah maag sama alaaji. Mhm. waaw yéen a ci jàpp waaw yéen ci jàpp. dargal la boo ko waxul sax ñun xam nañ ko macha allah très bonne forme aca comme ni mu ko tontoo sànq donc des désormais leer na ñi nga xamante ni dañoo jàppoon ne aussi rumeur yi taxoon mu indi li nga xamante ni mooy mariage c'était bien avant mariage génnoon na bu yàgg euh, ginnaaw li nga xamante ni nag mooy ba tey ñu desandi ci baat ak tontu mm-hmm. euh, nit ñi jàpp nañ aussi que ni euh, clip bi Euh, li nga xamante ni moom moo tax mu yeex aussi mooy euh, li la jotoo a daal mais yan ak yan euh, lan mën a xaar yan ak yan titre la ñu mën a xaar ci album bi ak kañ lay génn incha allah ndax <laughs> ñun noonu dañ laa nam dangaa war a ñëw rek enchaîner c'est vrai dañuy enchaîner ah. c'est que am na projet yu bëri yu waroon génn 2018 mm-hmm. yoo xam ne dañ ko bloqué woon mm-hmm. parce que mënuma ko woon défendre vu sama état donc je pouvais pas mm-hmm. projet yëpp la ñu bloqué de on album qui devait sortir il y avait un mm. grand événement boo xam waroon na am dafay mm. des singles mm. internationaux yoo xam waroon na génn donc yooyu yëpp mënul woon génn parce que je pouvais pas les défendre donc euh, li fi sosoon rek li nekkoon ci sama porte mooy mariage en mbalax pour bëggal quand sama fans yi nekk Sénégal parce que tey su ma su ma tolloo fii tey am nañ ci part bu bëri fans yi ne Sénégal di ma soutenir di ma pousser ba waa Afrique di ma di déglu sama musique mhm. di ko consommer mhm. donc du ma def lu dul gërëm fans yooyu maa ngi gërëm bu baax euh, comme nag ni ñu koy faral di waxee ku ñeme dañ laa di papa dafa jouer carrière euh, dafa jouer benn <laughs> role bu am importance ci sa carrière parce que presque euh, ñi ko bëggoon yépp ñoo wëlbati ko xale yi ñoo wëlbati ko yow bëgg la <laughs> malgré que ne am nga sa propre style bokkul ndax am na ñu bari sax ñoo xamante ni nee nañ papa day def musique boo xamante ni dafa engagé wu génnee ci album bi benn morceau rek jeex na. xam nga Père Ouzin nag dafa am style am ñëpp xam nañ ko ci woyu révolutionnaire chanter pour le peuple. Mhm. être au côté du peuple. Mhm. donc loolooy style am ci musique. comme ni ma koy faral di waxee dafa yaatu. Mhm. parce que damay dégg léeg-léeg ñu bëri naan musique dafa war a yeete war a kii forcément. c'est pas c'est pas obligatoire. musique dafa bëri branche. donc ku mu neex fi ngay dugg am na ñoo xam ne dañu naan man damay def musique rek pour xumbal. ñit ñi fecc ñi ñi fecc rek moo ko tax a jóg <laughs> am na ñoo xam ne sama classe bi dañu man love rek moo ma neex di woy amour ñi ñi déglu samay son di ko bëggee mhm. am na ñoo xam ne dañ naan man damay wax dama révolutionnaire la bari na fi artistes yoo xam ne de ils se pour le peuple dañuy conseiller peuple yi mhm. buñ tollee ci campagne yi dañ leen di gis ils sont impliqués donc art bi dafa yaatu mhm. ku nekk ak branche bi nga eh, jël yow ban style nga gën a man je plus euh, chanson d'amour euh, ak quelque fois quelques rares fois mhm. ma chanté des les mots de la société par exemple woy naa fi taalibe woy mhm. naa fi li ma doon mhm. woy naa fi ay thèmes yu bëri yoo xam ne immigration clandestine donc quelque fois ma laal tuuti ci les mots de la société mais je suis plutôt chanson d'amour donc ay branche la rek musique ay branche la yu bëri ku nekk na indi apport am ci ci musique boobu tout ça c'est pour développer rek la musique c'est pour l'évolution aussi d la musique d'accord ñi la daan gis euh, tout le temps nga ànd ak say say sœur macha allah les les les sœurs maanaam Ouza ñooñu fan lañ nekk léegi gisatuñ ne. waaw léegi ay daam lañ de. xam nga nag waaw lu monde évolue léegi sama sœur yi ñii sëy nañu Paris. ñii ñu ngi Sénégal. donc yow rek yaa leen dugg yow rek leen duggaloon ci. waaye voilà fekkee leen ci mboolem yi neex na déedéet kay donc sama sœur yooyu sëy nañu ba am ay doom léegi. ndeysaan waaw léegi ku ci nekk yaa ngi def sa vie. Mm-hmm. am na ñu ciy def musique nag. Mm-hmm. nekk Paris di continuer di def musique. Mm-hmm. waa mais ku ci nekk daal yaa ngi def sa vie. actuellement Adji euh, comment voyez-vous euh, la musique sénégalaise. Euh, la musique sénégalaise actuellement. mos naa dégg toog déglu Youssou Ndour muy wax musique bi léegi dafa dafa répartir dafa bëri branche. heureusement qu'il a qu'il a vu ça et il parfaitement raison. Mhm. léegi public bi public bu nekk. Mhm. ak genre musique bu muy déglu. donc musique bi dafa commencé. ku nekk dem fi nga far waa disloqué wu xam nga bu njëkk ba. Mhm. vers les années quatre-vingt-seize yooyu boo deful mbalax c'était très difficile. nga nga nga jàll ci nga génn. donc mbalax loon wala hip hop temps yooyu ñun ñu ngi topp. grand hip hop yi def <laughs> ñoom DJ Awadi yooyu dañ daan topp seen ginnaaw di daw di leen seetaan seetaani. donc soit da nga nekk ci hip hop bi wala nga nekk ci mbalax bi. Mhm. nga mën a def nga mën a populaire. d'accord mais actuellement on a vu que tu peux être populaire sans pour autant faire du mbalax. d'accord on a vu euh, une nouvelle jeune génération yoo xam ne. defuñu du tout mbalax mhm. et ils arrivent à devenir populaires mhm. en faisant une autre musique mhm. ci hip hop bi tamit on voit que les jeunes ñu ngi def yeneen style yoo xam ne ils parviennent à devenir populaires ci biir mbalax bi aussi am na ñuy def mbalax pur et dur xam ne ils parviennent à devenir populaires donc tu vois que branche publique bu nekk ak li ko neex au fait donc musique sénégalaise mi ngi commencé di élargir public baa ngi commencé aussi di évoluer tout parce que am na ay moments yoo xam ne quand même exclusivité la woon boo deful lii doo populaire. Mhm. dinañ la wax waa sa musique nice nice na mais doo noonu populaire. Mhm. mais gis nañu branche léegi public bu nekk. ak ak valla ak mhm. façon style musique bu ko neex. mbalax biit beeg afrobeat léegi am na fi wàllu Sénégal. day def buzz. Mhm. mbalax bi aussi mi ngi def buzz continuer def buzz. tout à fait hip hop ay ñoom trap yooyu ñu ngi continuer di def buzz. effectivement donc répartir na bu baax quoi. Mhm. donc duñ def lu dul euh, gërëm ci le public sénégalais bi nga xam ne am nañ ouverture boobu léegi. tout à fait donc ñu yaakaar ne rek. Mhm. du du mës a yàq suñu mbalax bi aussi. <laughs> <laughs> ouverture boobu du mës a yàqal suñu mbalax bu yàggee dootuñu gisati mbalax. <laughs> ah man loolu euh, lay ragal mës naa ndeysaan di waxtaan ak Daba Sey ne ko. Euh, ñi ci bari nee nañ li tax musique bi doxatul. Mhm. Euh, maanaam du dox à l'extérieur c'est parce que dañ ko war a moderniser mu ne caat pourquoi ñuy moderniser ñun dañoo gëmul suñu bopp. <laughs> américains yi dañ ñoo imposer si musique bi ñun lu tax duñ leen imposer suñu bopp. <laughs> mais xam nga xam nga tamit loolu c' plus complexe au africain bi imposer musique am c' est plus parce que américain yi dañu yor média yoo xam ne. Mm. mainstream boo xam ne buñ la fa tegee. Mm-hmm. mais ci orbite ngay nekk. kenn mënu la raté ci planète Terre. kenn mënu par mm-hmm. exemple Rihanna mm-hmm. bu génnee album. yow da ngay nekk fin fond Fuuta sax. si li xam ne ne Rihanna génne na album. tandis que Adiouza bu génnee album génn album waxuma la <laughs> France wala États-Unis moo tax niveau yi du benn du benn c'est vrai bi la ak nii mhm. moyen de communication yu ñu yor mhm. ak ñun suñu moyen de communication yu minime yi mhm. ça a rien à voir donc c'est pourquoi c'est très difficile d'imposer notre musique mais question bi du question de musique bi ñuy jouer parce que moom laa leen wax chaque jour boo demee ci musique brésilienne il y a vingt six perc ci biir musique bi xam nga fii dañ naan mbalax bi dafa bëri percussion moo tax du dem mhm. mais boo demee ci musique brésilienne ay 26 perc bi ma demee Brésil gis naa leen 26 mhm. perc la ñuy teg di ci jouer mhm. te yàqul da c'est bruyant quoi comme le mbalax c'est aussi bruyant que rock aussi c'est aussi bruyant que te teewul musique yooyu internationale nañu d'accord mais léegi je pense que ñun nag ñoo war a liggéey la nouvelle génération ñun ñoo war a liggéey pour jéem ubbi aussi topp gars yi fenn fudul Sénégal ak Gambie donc il est temps que la nouvelle génération mhm. ñu génn mhm. ñu génne musique parce que mag ñi def nañ li ñu def ba pare ah. ñoom Youssou Ndour Ismaël Lô Ba tracé nañu chemin mais loo xam ne nii mhm. génneeguñu musique fenn yóbbuñu ko fenn fi mu yemoon lañ ko bàyyi ba tey euh, moom nag c'est une façon boo xamante ni wax na ko pour incarner xëcc ñi nga xamante ni mooy nouvelle génération bi à que ñu bëgg li nga xamante ni moom la ñuy def comprendre ko comprendre ko noonu ba mën koo exporter à l'extérieur. à l'extérieur. mais toujours en renseignement et ouverture. d' accord mënuñu foofu laa naroon a jàpp ñëw a jàppee. <laughs> ñëwal ñëwal ma lay dégg. que on a tendance tey ñuy ñuy toppandoo. di toppandoo ba si ba ba ba mujj fàtte nga xamante ni dañuy dénaturer en quelque sorte. copie copie bi ñu bi ñu tàmm def au Sénégal. buñ ko moytuwul tamit day mel ni mbalax bi tamit du dem. parce que boo bu ñu naree copie collé nigérien ñooñu ko dàq téeméeri. tey yéen da ngeen am rôle bu am importance. ci ci société ak éducation nationale. c'est ça bu ñu naree copie collé rek du xale yi sax ñooy kale. xale yi dadul dem sax mais dadul dem parce que en live tu peux pas le défendre. yi loolu ça coule dans leur veine. li ñuy tëgg ci seen i veine lay couler mën nañ ko défendre donc mm-hmm. li ñu ciy mën a génnee. Mm-hmm. moom laa doon jéem a def. Mm-hmm. ci maalo nopp def ko ci daal di garder ay sonorités sénégalaises. d'accord jéem ko ubbi nag. Mhm. génn ak moom. mais copier-coller musique nigérienne afrobeat non du du ñu yóbbu fenn. rafet na Adja li nga xamante ne nag mooy baat ak tontu jeex na yeneen kalama ñaatu <laughs> yeneen kalama ñaatu question yi moom naa ko bàyyi ci suuf. donc dañuy daw rek dikkaat bu ko defee ñu daal di dugg ci jom jom à tout à de retour ci seen émission bi nga xamante ni nag mooy makkaan tey nag sama invité spécial nekk la parisienne Adiza <laughs> alors Aji jomb jomb yi laa lay laaj lan ak lan la Aji jombale boppam. Hmm, jomb naa par exemple wax loo xam ne wóoruma. d'accord. jomb naa def lu nit lu bon. Mhm. jomb naa gis nit mi ngi avancé. Mhm. nga gis ne loolu metti na la. Mhm. nga def yu bon pour mu. pour mu stagner. Mhm. yàq daru nit. Mhm. jomb na def lu ñaaw aussi. Mhm. voilà. aca mu nekk yu am solo lii c'est c'est juste une sorte boo xamante ni day tax ñu gën laa xam xam nga nit ñi dañ leen di gis rek devant les écrans te duñu xam réellement yenn nit lañu donc euh, merci ci nga joom sama olof moo xóotul nag yow nga dégg olof sama yaay nee na xam nga moom ndeysaan elle est elle est nee na mm-hmm. xam nga nee na dafa dooj ba ne nee na mooy suukar ragalul diabète waaye na ko ñam si <laughs> sa yaram <laughs> dëgg samay olof leerul. <laughs> si euh, macha allah euh, li nga xamante ni rek mooy laaj naa la ko nit ku nekk comme li nga ne jombale nga ko sa bopp. Euh, tey ji nan la koy def mu dégg rumeur surtout biñ ne da nga divorcé lan la la def. reetaan reetaan laa ñëkk def uh-huh. man man xam nga la vie dama ko jël positivement. Uh-huh. donc lépp lay positiver. Uh-huh. même que boo ñëwoon tey nii di ma attaqué nii. Mhm. ay reetaan laa lay may. Mhm. donc lépp positif mooy sa arme en quelque sorte. mooy lépp positif ci man dans la vie. dara dara négatiful. devant mois mhm. à part à part euh, rey nit. mais leneen loo mënti wax ci àdduna ay ree la may dikkee quoi. donc c'est positif. ndeysaan euh, mën nañoo xaar nag ci kàttanu yàlla récemment nga def duo ak Viviane ci. pourquoi pas. buñ ko sentir rek. voilà parce que dañ la gisoon benn sa benn live. Mhm. ngir reprendre ñoom ñëpp. seen seen seen seen chanson yi. Mhm. Euh, ci kàttanu yàlla mën nañoo xaar yooyu. waaw mën nañ ko xaar mais xam nga comme ni ma koy waxee chaque jour. sénégalais ci boppam ñoo amul culture featuring da ngay gis yeneen dëkk yi ni ñi. ñi mais lan moo waral loolu. bah franchement j'ai pas la réponse <laughs> dañuy bañ boo ñu ñëwee nga daaneel leen ak yooyu noonu. Ah, non quand parce que woykat yi ñoom ñëpp ay ndaanaan lañu quand même <laughs> yaakaaruñu loolu fii rek képp ku fi fexe ba am yoon rek def sa mhm. yoon rek c'est parce que da nga mën li ngay def quand mais est-ce que par exemple Adji mënul mënul jël album bi ñëwaat comme bi yàlla na ba pare mu ne bii de xalaat naa ci kii xaama dem boole ci wala da <laughs> yombul yombul <laughs> ñun ñëpp ci yem yombul c'est pas facile yombul nga ñëw rek ne album bi ah sant naa ci tele chanteuse xaar ma dem woo ko kay ñu woy mu ñëw woy noonu yombul de nan lay demee ko c'est pas facile du tout c'est pas simple au Sénégal là hmm. c'est simple lu tax simple ak lan lan ak lan la dañ lay teg ay condition wala non lu teg ay question condition mais question de feeling la en quelque sorte hmm. xam nga tamit euh, boo sentirul sentirul woy ci yenn nga bëgg fa dem wëy wala mm. nga bëgg indi kenn ku ñëw ci style boo xam santiru ko tam doo loolu du yomb. d'accord mais mais Dame Sène moom moom mooy passe-partout sama mag <laughs> jooy. passe-partout la. <laughs> te <laughs> pourtant bi ngay bi ngay def mariage da nga ne ko dama ci sentir daam parce que xam naa ne daam day riime passe tey day riime tey woy bi tamit dañ ci bind ay riim. xamoon naa ne day riime moo tax ma woo ko. Uh-huh. mu ñëw ci son bi. parce ku baax la tam je de l'occasion uh-huh. pour le remercier. Dame Borom Thiès waaw bu ma ko woowee ci son bi. Ah, li xolal dafa ñëw rek dugal. vrai mm-hmm. professionnel. dama ko ne thème bi mariage la point. Mm-hmm. mu ñëw dugal dugal dugal ba inspiré waale ma kan. <laughs> moo tax wax nga ma waxee wax yu garaaw nee ko xaw ma foo mën naan say doom <laughs> man daal sama mag ji jaaxal la ma euh, comme jomb jeex na dañuy daw rek indiwaat li nga xamante ni mooy top du jour let's kuy dund di nga am lu neex di nga am lu euh, dañ koy laajee rek noonu ki nga xamante ni mooy Adiouza sunu top du jour tey fan nga koy accentuer donc maa koy accentuer surtout ci euh, civisme. civisme ñu ñëw ci civisme. <laughs> Eh. civisme tey nañ indi thème société civisme. waaw civisme tey ci civisme laa. Uh-huh. civisme dafa xam am dafa doon loo xam ne dafa am solo. ci dëkk dafa bokk tamit ci euh, développement wu dëkk. parce que bu ñu nee éducation rek wax civisme te civisme euh, dafay tax dëkk bi développé. ku nekk boo xamee li nga war a def. Mhm. du ñu mës a xuloo. Mhm. du ñu xiiroo du ñu mhm. donc xam nañu ku nekk li nga war a def. par exemple ñiy jaay ci marché ba bu doon dañu wàcce dañu wàcc bale fi ñu nekk doo doo sa xaar. ñi war a ñëw nettoyer ñëw nettoyer ko fi nga doon jaayee saltel naa ko. saltel naa ko ma bale ko loolu ci civisme la bokk. ma nga lekk. Euh, nekk ci mbedd bi bañ ko sànni ci suuf. ci civisme la bokk. nga nekk ci tali bi piéton di jaar nga nekk di xëccoog moom ba xaw koo rey <laughs> ci civisme la bokk <laughs> donc civisme dafa doon loo xam ne ni. Uh-huh. buñ ci jubloon buñ ci focusoon tuuti rek. Uh-huh. je pense que mentalité dinañ changer dinañ changer ca dëkk bi aussi dina mën développer dina mën a naat. loolu laa yaakaar. Euh, donc lii daal bokk na ci li nga xam moo la gënoon a metti te bëgg nga ñu gën ko exploiter. boo ci oto bi boo yoree oto rek. Uh-huh. nekk ci tali bi rek. li nga xam ne aw oh, civisme <laughs> civisme war nañ ci <laughs> accentuer tuuti. bu baax a baax civisme war nañ ci accentuer ndax manqué nañu carence totale la. <laughs> Ah, nañ ko jàngale man de man de je pour sax ñu jàngale quelque def ko en taasu. Mhm. pour ñëpp mën a accéder. <laughs> pourquoi pas mais way ko li ci école yi ko yow waykan nga. pourquoi pas. way ko li ñuy jàngale ci école yi waaw ñu def ko en wolof mbalax bu saf. Mhm. ñu taasu ko ñi ñi di ko woy xale yi xale yi jàng ko. waaw màggaale ko màggaale ko nga xam ne ne. mais yaakaar naa ne kon di nga ko jàngal mag yu bare. waaw. il le acca <laughs> euh, mi ngi noonu tey li nga xamante ni mooy top du jour Adiouza mi ngi ko accentuer ci civisme mu nekk lu am solo dañuy ñëw rek nag ci projet yi nga xamante ni wax dëgg yàlla à court et à long terme ci kàttanu yàlla mais jamono ji nag mariage bi moo nekk lan mooy promo bi yéen ak yéen nga ko bëgg a defee tey ci bu gën a yokk publicité bi. ah promo mariage bi nag staff bi ñu ngi ci. Mhm. gis naa leen ñuy def ay challenge. Mhm. challenge yaa ngi fi xale yaa ngi yónnee seen challenge. Mhm. ñu ngi promo ci média yi aussi. site internet yi. parce que mhm. man dama dama focus trop ci internet dafa di loo xam ne ci man. Mhm. dafa bokk ci communication. site partout la nekk partout nekk. parce que c'est mondial. xam internet mën nga dugg mën nga nekk États-Unis dugg internet. taf taf mais am na chaîne yooyu télé yoo xam ne sax. boo ko amul doo am accès bi <laughs> donc internet dafa di lu am solo. donc gis naa ne sama. staff bi ñu ngi concentré wu carrément ci internet bi. di def ay challenge ñu leen di yónnee fu nekk. Mhm. ñu ngi def émission télé yi aussi. Mhm. émission rajo mhm. donc. promotion classique quoi. basique lañ nekk di def nii. bu ñu jugee ci loolu nag y a une soirée de lancement. bu ñu war a defal mariage le 4 janvier fële ci casino du Cap Vert. Euh, soirée soirée ndawtal la boo xam ne da ngeen war a ñëw de. yii soirée ndawtal la nag. ndawtal kuy ñëw da indaale sa ndawtal. <laughs> ñun lan lañu war a indi ñun lu ñu war a indi. ah yéen maa ngi leen di xaar daal soirée ba. Ah, waaw d'accord ñun ñun dañoo mën a ndaw talaata ah, dañoo am dañoo am bu mën a joxe xaar. Ah, mhm. mais kon moom bokk na ci parrain yi xoolal parrain dinaa ko boole ci publicité bi. jeex na après naa ko wax <laughs> jeex na donc soirée ndawtal boobu ñu ngi ko war a dem mhm. bu ñu jugee ci loolu tam am na single yu war a génn nii nii. Mhm. nii ci début d'année bi. parce que comme ni ma la ko waxee dañu bloqué woon projet yi. dañ leen bloqué woon. Mm-hmm. mais léegi nag bombardé rek ci des incha allah. Ah, waaw waaw na ñëw daal na ñëw daal rek donc dinaa kii soof mm-hmm. seeni kanam. <laughs> parce que dinaa génne affaire yu bëri yu teg la yoo xam dafa teg la parce que ay projet la woon yu ñu bloqué woon. Mhm. yoo xam mënu woon génn parce que mënu ma koon défendre. donc dinañ wax fan si rek. 2019 mhm. sera riche en événement. Mhm. projet yi dina bëri trop. yi jotoo yi waroon génn génn ñu yëpp dina leen sànni euh, di wax tamit concert yi war a am 2019 ci Sénégal tam aussi de grands événements yi ñu war a organiser. yu ñu waroon def defuñu ko yooyu yëpp 2019 lay xewee. donc nañu rester rek à l'écoute rester réseaux sociaux. Uh-huh. dinañ jot nouvelle yëpp. dinañ uh-huh. déglu dinañ uh-huh. gis daal weddi daal gis bokk ci wax ji sax. jaru ko nañu toog rek xaar. <laughs> ci kàttan yàlla. <laughs> Aja bi may jeexalee nag pour ñu clôturer lépp nag en beauté. mooy incha allah euh, bon réseaux sociaux yi ravage bi muy commencé def. fi mu nekk nii ci dëkk bi. Ah, <laughs> non bii dama koy dama koy dama koy dugalaale dama koy dugalaale xam nga lu tax. Mm. dafa commencé indi ay ravages yu dangereuses. Mm. Euh, yoo xamante ni euh, wax dëgg yàlla mi ngi yàq euh, éducation bi. mu mm-hmm. ngi yàq mu mi ngi saggi saggi. Mm-hmm. comme ma jàngal xam lan mooy saggi sax xam nga. non non da nga dégg xam nga da nga dégg <laughs> macha allah euh, tey nag nga ñëw ci tuuti ak yow nan nga ko constaté tey boo amoon message bu foot booy jox ci ñiy def yenn yi euh, ak ñi nga xam ne ñooy utiliser portable te xamuñu yan yan danger la ñu mën indi lan ak lan nga leen di wax. waaw euh, réseaux sociaux yi nag ñu ngi ñu dëkk bi actuellement ah, ah. parce que li nga xam ne dafa daan xew ci dëkk bi kenn du ko wax. Mm-hmm. ñi ndëpp ndëppal ko nëbb ko. Mm-hmm. léegi dafa doon loo xam ne bu amee rek réseau sociaux yi dañ koy fësal. Mm-hmm. donc ku nekk di daw muy course au clic. kan moo nar a ëppale clic donc réseaux sociaux yi base bi yëpp loolu la. kan mooy buzz kuy ëppale clic donc par tous les moyens les gens sont prêts à tout pour am plus de clic plus de buzz. même léeg-léeg da ngay gis ñu nekk di di fen di créer ay histoire mm. pour rek am buzz enregistré yi ñuy gis nii. di wala wala nga nga jël. intimité jigéen génne ko ci internet bi. voilà loolu yëpp aussi qu'est-ce que ça vous fait yow boo gisee loolu. je suis ça me rend triste quand même parce que je pense que ñun suñu société. Mm -hmm. on a plus de valeur que ça te sutura dafa baax. Mhm. je pense pas que c'est bien ma ñëw wax ak yow. Mhm. ma enregistré la génn weer la. ne la diw de moo fi waxoon lii. Mhm. ci man trahison la. trahison la trahir nga sama confiance. Mhm. donc man dama gëm valeur yooyu nga xam ne ne. Mhm. dama la def confiance da nga ko da ko war a mérité. te da nga war a sàmm loolu aussi. tout à fait mais trahison bokkul ci sama. vocabulaire te bokkul sama gis-gis aussi donc réseaux sociaux yi di leen wax rek mhm. ñuy vérifier quand même boo gisee lenn kii mën na yàq viwu kenn par exemple intimité jigéen mën na yàq viwu gel bi balaa nga koy dugal nga woo ko kat laajte ko au moins nga vérifier bu dee mënoo bëgg nga dugal carrément. Mm-hmm. parce que yaa ngi course clic yeeg buzz. nga woo au moins nit ki avertir ko. tout mu xam lu muy def. Mm-hmm. boo ko mënul bañ a dugal nag. Mm-hmm. Euh, ba nga négocier ak moom quoi <laughs> mais li li gën a metti mooy sites yi nga xam ne loolu rek la ñuy lijjanti. loolu rek la ñuy wër. pour euh, pour plus de clics. pour euh, Euh, seen site am buzz. Mm, donc di déplorer loolu rek di leen ñaan rek. Mm-hmm. surtout di leen ñaan. Mm-hmm. buñ jotatee information nañ ñu nañ ñëw. vérifier nañ vérifier waaw parce que en quelque sorte seen rakk lay doon wala seen. mag parce que ça ça ça détruit des vies quand te dina tax sax nit ki daal di gàddaay. waaw euh, dootu fi nekkati. donc nañ ci nañ ciy bàyyi xel am na am na solo. Mm-hmm. xanaa rek laaj la li la gën a marqué ci carrière bi yëpp. li ma gën a marqué ci carrière bi. waaw ci carrière bi <laughs> dans bi yooyu loolu. li ma gën a marqué ci carrière bi c'est c'est mon album mon premier album. parce que surprise la woon. Mhm. xaw ma woon ne dama def album bi génnee ko fi dem continuer samay étude à Paris donc mhm. xaw ma woon ne sax album bi. dina am succès dina fexe ba. imposer sama tour ci Sénégal ci musique sénégalaise. Mhm. donc loolu marqué na ma trop. Mhm. li ma marqué dans ma vie aussi. Mhm. c' la naissance de mon enfant aussi. cette année. muy euh, émotion boo xam ne je l'ai jamais vécu. muy euh, loo xam ne nii. képp kuy maman waaw dama ko daan dégg mais mosuma xam xolu nday ci doom. lu muy tekki. mais depuis bi ma amee doom euh, dama gën a respecté sama yaay. tout <laughs> respecté aussi. Mm-hmm. gis lu mu daan daj ci ñun yëpp. Mm-hmm. parce que xam naa ne xolu ndey ci doom rek moo war a doon muy daj loolu yëpp ci ñun. Mm-hmm. donc euh, maintenant je sais ce qu'est une être une maman. donc émotion bu exceptionnelle. koo xam ne je l'ai jamais vécu et fort. ndeysaan <laughs> euh, ginnaaw nag ko wax lu la neex di nga di nga mës a wax loo xamante ni mës na la arrivé mu naqari la loo xamante ni si c'était à refaire doo ko defee noonu. ku wax lu la neex wax lu la naqari. bien sûr ah fii fii tey mooy caat chez caat. caat yaa <laughs> ma la ko dama positif de lu ma naqari ci àdduna rek. Ah. Ah. lu la xawa a naqari sax tuuti. est-ce que am na man parce que man du ma du faral di jàpp à part ministre de la culture bi ma déposé loon hmm, euh, benn rendez-vous. Mhm. audience recevoir ma à part ça non j'ai <laughs> waaw te loolu c'est yàgg na c'est pas important ministre boobu ba tey moo fi nekk wala ah, changé lañ ko ba mhm. mais c'est pas important ça. mais lan moo taxoon lii wu la recevoir la. il a ses raisons. <laughs> je dinaa dem pour ñu wax ma lu tax jëluñu sama mag ji quoi en tout cas kontaan naa saa yu jëm plaisir ñëw fi tey makkaan bi neex na trop ci ci ci ci Djily ah, Mbaye. makkaan ak Pape ak nu mu tuddati Babacar ak man mii toog. di remercier sa équipe bi yëpp aussi. macha allah sa gars yi nga àndal. Uh-huh. ay jàmbaar lañ di remercier seen directeur internautes yi leen seetaan yow aussi di remercier ku baax nga. Uh-huh. toujours souriante c'est c'est important. Uh-huh. di euh, remercier comme nee nga médicament la. médicament mais c'est important c'est important c'est important rek. peace and love. <laughs> di remercier aussi sama ndaanaa ni ñoom Marème Chalar ñoom bis collection yi xam ne. dañuy jàpp ci sama liggéey bu baax. bu ñu ma déggee bu ñu ma déggul. Mhm. ñoo ngi sama wet di ma pousse di ma encourager. Mhm. je remercie mon père ma mère mon mhm. mari aussi. sama famille jëkkër donc je remercie tout le monde daal. samay sœur ku lim juum ak <laughs> léegi dafa ngewale de <laughs> léegi. biir Sénégal bi dëgg na ko. <laughs> alors ah. Adji tey danga maa bëgg nga woyal ma nag sama ñaari yaay yoo xamante ni ñoo ma yar. ajaratu Kinde Ndiaye ak ajaratu Mariama Thiam. génnal ma leen nag fu ñoom fu nooy fu nooy ah. mm-hmm. lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragalu lu ma bëgg la dañ ma ni tànn ma jox la sama volant baby dawalal. daa ko dawal. <laughs> naa borom tali bi maa yor bi laaju la permis. non du ma la wax bi. non yow doo ñoom. ma xam loolu. ba xol bi réeré ci mbëggeel yaa ko for. ko for woon keneen da koy for. yaa ko for ku ci mer tontu ku ma bëgg na ma bàyyi sama honey honey. eh yaa eh, ma def li ma mel ma la nopp eh dama bàndi ci yow ma la nopp da nga sori ci yow ma la nopp tax bëgguma ñu wéet ndax da nga sopp Mariam Thiam lu tax ma bëgg laa lu tax ma sopp laa yaay suukar te ragalu ma jabet hmm. tu me fais nga fi sama xol sedd na congélateur félicité euh, kontaan nañu aji di di la wax aussi yàlla na yàlla barkeelal album bi te bu ñëwee am succès bu gën a ëpp bi bi bi fi jot a passé ci barki Serigne Saliou yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barki Serigne Touba alors di wax ñëpp nag ñi nga xamante ne ñooñu doon seetaan Adiouza lañ seet si woon tey euh, mu lancé li nga xamante ni mooy singalu mariage euh, jamono ji nag mu commencé def ay ravage ndax ñëpp xale yëpp bëgg na noo marié wu ñëpp ñëpp ñi nga xam ne amuñu jëkk sax ndax wax dëgg yàlla parole yu fort yi nga xamante ni am na ci ñu ngi ciy kontaan di la ñaanal si euh, la porté vous bien ñu ngi leen di ñaanal ngeen passer une très très belle euh, belle journée yal na leen ko yàlla defal ba keneen rek ci kàttanu yàlla ñu am beneen invité ak Makkaan ak Sénégal 7 peace seen love